wax ci artist bi la di soxu bébé moom mi le nag di soxu bébé dafa am lu ko metti ci benn entretien nag bi ñu ko dalaloon dellu si waat na rek ci relation Zeyna Ndour ak Sidi Diop ñu ko jiiñe daal moom moo ko siiwal daal di koy relayer si réseaux sociaux yi mu ci xamle nag mooy moom mi le di soxu bébé wutu la buzz dama gis information bi ñu dugal ko ma jël ko capturer ko dugal ko moom la xamle ndax nag jàpp na ni lu ni mel graawul ndax waxul benn yoon ni ne daal Diop day takk Zeyna Ndour mu mel ni sax ku énervé ba dal ci kaw ki ko doon interviewé naan ko daal maa la dàkk tontu fuuf munoo ma wax loo loo xam ne bëgguma ko wax maa la dàkk maa tontu fuuf man loo wax rekk mën naa la tontu yemu ci nag ndax nag limu leeral rekk mooy xamul kile di Zeyna Ndour moom bu ñuy wax itam itam Sidi Diop nee na daal c'est un frère et je le respecte beaucoup sekkuma sax ak moom ay waxu relation que sa soit clair moom la artiste bi le di soxu bébé nekk chanteuse wax nee na nag dafa jàpp ne rek lii moom lu baax la ndax nag sëy lu baax la waxu waxuñu sii di Diop mooy def lu bon waxuñu Zeyna itam mooy def lu bon kon nag su gisee information bu baax wax ko loolu daal jàpp na na ni dara nekku si ndax nag Zeyna ndaw la ku jàppale yaayam la sii di Diop itam mi ngi def carrière ku baax la lu mu ci yokk itamit mooy nag ki jël affaire bi ci contactam yi la nekk mooy ki def def-def bi xam na kan la woo ko te waxtaan nañu te nee na ko dang ma bëgg a mettre en mal ak Zeyna wala sax ak Sidi Diop waaye nag ku mel ni Zeyna nee daal xamu ko te musuñoo wax waaye nag respecté na ko elle respecte respecte beaucoup ku ko jox cër la itamit jubluwu si nag lu bon lu mel nii daal nee na nag jox na ko leçon ndax nag bu ëllëgee dina tax rek mu jàngat lu bëri soxu bébé nag nee na nag moo ngi jéggalu bu baax ci statut bi mu def ba waral nag daal siiwal ko ci réseaux sociaux yi ku nekk daal di jot di ci indi ay commentaire lii lañ leen indi loon xibaaru ay bés yi ñu ngi leen di jox di daje ci yeneenu xibaar appuyez ci Dakar Media TV